maa ngi ak Boy Faye Boy Faye nuyu naa la. oui ngi lay fay bu baax a baax Ousseyn. ci loolu nag gëj naa laa gis. sant yàlla nekk ci bagage yi rek. <laughs> fi mu toll nii waaw ñu ngi ci liggéey bi nag ñu ngi ci liggéey bi instant bi di déglu gars ñu am làmb yu ñuy wax mais ñu ngi toog di xaar gars yi quoi instant bi di xool fan la fan mujj quoi. su ma juumoo yow jotoon ngaa lekk avance. waaw jëloon naa avance euh, jam production depuis Covid laa ko jëloon ñu ngi dox làmb yi mais boobu ba xam naa rek mooy loolu gars ak yaa ma gën a xam làmb ji moytu beeg bagage yi nu mu. mais eh, li tas mais boobu ba kenn di gàttagu la. waaw waaw combinaison yi ñoo tas mais ba léegi nii ñu ngi wut nag gars yi de mais am na am na bu ñu ma wax nag boo xam sori nañ ci torop torop torop dañuy ñaan yàlla suñu borom dogal la xam naa ne yow doo ragal te xam naa ne fi mu toll nii même bu ma la laajul sax yow war nga maa mën a limal sa adversaire bu dul ñooñu ñooñu kan moo fi sa kanam fi mu nii non man moom instant bi nii lamb ji moom comme instant na gars yi nañ ñëw ñu bëre Moussa Ndoye Tom Garga da ngaa daanoon mu ñëw Sa Thiès nga ñun su ma taxawee seen kanam su ma leen tiimul duñ ma tiim na ñëw ñu bëre lamb ja amul ay maa ko sut ak maa ko mag ak maa dañoo yàgg yoon. waaw léegi la andilee Weuz Diambar moom Weuz Diambar mënu ma bëre ak moom parce que Weuz Diambar mënu ma bëre maa ko ëpp combat man dama bëgg lamb ju métti Weuz Diambar buñ bëree dama daan ñu du lamb man maa bëgg lamb ju métti laa la wax. mais yaa ma lamb bu métti. barke Alxuraan instant bii nii li ne muy waa parcelle inde kaat bi nii yëpp waa ginnaaw raay postiare ñu ne sama ginnaaw do waa Fatick yëpp dañoo ma bul jël làmb làmb bu nooy du ma ko bëre man bëre ma fekk benn ma ma benn làmb bu nooy booy yi ne ñoo fi mën léegi nañu xool ki ñe kenn ñemeewu koo jël man boo fekk ubbi naa samay porte ku ñe kenn ñemeewu kaa jël boo ñëwee ma jël sa avance barki Mouhamad billaahi wallaahi ku ñëpp moytu ne kenn ñëwul la jël soo ñëwee ma jël la. Diam Terry bu ma jël ko barki arwa ci moom lay des wallaahi mu moytuwul bu bëggee mu jël ma ma xaaj sama avance dooleel ko barki borom njaareem. mais dama gis combat dafa yàqu woon. muy général Malika ak fils de Balla. waaw la moo tax joxoon jëlu avance. la bëgg a wax ne la kuñ ma seet fay ma liñ ma war a fay man néew ma fi pour moytu benn mbër. barki Muhammad Rasulullah buñ ma seetsee nga waxtaan sama staff staff ñu bu nee dimanche dimanche pare nga. barke alxuraan suba suba suba boo fee pare na pour man ni ma toll ak li may liggéey lépp su xaar làmb 15 jours wala un mois pour mun naa bàyyi lamb ndax li may liggéey kon mun naa bàyyi. yee loolu la quoi. kon daal mën nga wax gars yi nañu waay. staff bi ma mën a wax ma mën a wax mooy maa ngi déglu staff bi di xaar gars yi bu ñëw baax na boo fee ñu toog pour ñëpp làmb yi jaar ñëpp xam nañ ko làmb jaar bu ñu koy indee ba bëre ko. amul benn problème. kontaan naa ci yow waaw amul ragal tey waa Kal moom xam nga sunu garaa la. moom sama maga doon ànd borom baax la kenn du moom. di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek waaye ñëpp ay ay xaritam nag moom boo yëpp ay booyam lañ dañ koy ñaanal ndam rek bari waay bëggee ci yow